salaamaaleykum wa rahmatullah taala barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar te di leen jokkal ci bis bu tedd bi ñu nekk di bisub Serigne Touba Khadim Rasoul ñu nekk ci wàccaay bis bi nga xam ne moo ne woon képp koo xam ne sama mbég sa mbég la nang ma ci sant la yàlla bu see ñu toll kon tey ci sées safar ñu ngi toll kon tey ci sées safar tolloog àllarba nga xam ni kon ñu ngi ci wàccaay bu baax a baax a baax boo xoolee li sama gannaaw rek xam ni ñu ngi ci wàccaay wi soxna yi ñu ngi ci reer bi nii eh, wax dëgg yàlla kenn ku ci nekk fa nga jóge sori na lool ñii ñi ngi jóge ba Louga ñii bàyyi ko ba Ndakaaru lépp nag li leen ñor mooy ngir bis bu jeg rek ndax sëriñ bi moo ne woon képp koo xam ne sama mbég sa mbég la nang ma sant la yàlla bu bis bi dellusee moo waral taalibe yi ak bokki jullit ñëpp rek kenn ku ci nekk bàyyi sa yitte bàyyi ko ci ay gox yu fasante ko fas yéenee ñëw ngir def la sëriñ bi loolu yi nga xam ne moom la waxoon ci bisam bi kon duñ def lu dul euh, di santaat yàlla baax a baax di gërëm te it euh, kon kon ñu ngi ci bis bi nga xamante ne si nii daal sées safar fas yéenee jëm ci kanam ci màggal gi mu Muxaddamatul ma nag nin ko waajale mooy fexe ba doomu aadama yi nga xam ne ñooy ñëw ci bërëb bi mën a ziar ziar bu jaar yoon mën a def seen jaamu yàlla ni mu waree te kenn du am benn jafe-jafe loolu la waa daayira Muxaddamatul Xidma ak mboolem personnel bi nga xam ne moom la ko àndal ci ay daayira yoo xam ne ñi ngi jóge ci ay gox yi fasantikoo comme ni ma ko waxee léegi Mouhamed ah, kon daal daayira Muxaddamatul Xidma bàyyi nan xel bis bu baax a baax a baax man nag ah, kenn laa ci membre daayira Muxaddamatul Xidma bokk organisation féete fi nga xamante ne si mooy cuisine Euh, kon Mouhamed euh, wax dëgg yàlla ñu ñu ñu ñu di ko taxaw bu baax a baax a baax a baax nekk ci wàllum yi nga xamante ne mooy berne yi ndax sëñ bi berne la waxoon sant yàlla ak berne. kon ñoo ngi ci berne féete ci wàllum xewal yi kon ànd na sëñ Mouhamed léegi wan ko li nga xamante ne ni moom lañ waajale bés bi muy suñ personnel ci muy sunum ndugg sëñ Mouhamed gis na ko bu baax a baax kon daal euh, waa daayira Moukhaddamatoul Khidma ñoo ngi. ci li nga xamante si moom la ndigal li sëriñ bi joxe woon na ngeen ma sant la yàlla képp koo xam ne sama mbég sa mbég la bis bi bu ñëwee nag ma ci sant la yàlla kon ci la waa daayira Moukhaddamatoul Khidma nekk euh, di ci di ci di ci nab nabi euh, fexe tey lépp lu xam ne jëf nañ ko ci mu dëppoog li ci sëriñ bi bëggoon loolu rek mooy seen excitif kon nii nga gisee nii ñu commencé xewal yi noonu lañ koy fas yéenee waa di ànd ak moom di ko yóbbu ba 21 safar. kon daayira Moukhaddamatoul Khidma tout le temps danan taal ay xéwal mu demee ci reer ak ndékki ak añ ba ba ba vingt et un safar kon daal sëñ Mouhamed noonu lañ fa yéene doxale seen programme jërëjëf